dal leen ak jàmm mbokk internet yi Yaatal Vision ñu dikk ak yéen ci la gën a fees dañ koy daal di door ak kii di Bassirou Diomaye Faye président de la république bu Sénégal ginnaaw dogal boo xamante ni bii nag jël na ko boo xamante ni bii nag du noppal benn yoon ñi nga xamee ne dañ daan xëy di tëdd te dañoo amoon nag ab salaire ñoom nag ñoom ñoo ñee te dawun xëy dawun gontu loolee tax na nag kii di Bassirou Diomaye Diakhar Faye président de la république nag daal di jël ab dogal ngir nag ñuy xamle nag ne képp koo xamante ni bii nag nga daan xëy ñu lay fay par weer te daawoon nga liggéey ji nag loolee dafa jeex tàkk nag ginnaaw bi nga xamante ne nag appareil pointage bi nga xamante ne wut nañ ko nga xamante ne képp koo xamante ne nag da ngay xëy fawoo rek dan lay xam ñaata fan nga xëy ay ñaata heure ngay xëy bu weer dee lore rek lan lay dal di fay loolee nag kii di Bassirou Diomaye Diakhar fay nag fas yéene ko daal di defal ñu daal di koy fas yéene commencé nag danoo wax ne ni ki tey jile ci lundi bile waaye nag foofee ca wet gi sax la dal di yëkkati ay kàddu moom moomee di Bassirou Diomaye Diakhar Faye di xamle nag ne foofee ci wetu géej gi nga xamante ne ku ni ki Dakar képp koo xamante ne bii nag da faa masoon a jënd lu toll ak ci wetu géej ga wala nag nga bëgg faa tabax mbaa nga wala nga tabax fa nal leer na nag bu fekkee sax da ngaa bëggoon a tabax booy boon nag nga daal di dakkal nag tabax boobale ndaxte kat faaw des na ca teg nag li nga xamante ne moo di loxo ngir nag loolee alalu askan wi nag moomeelam la waaye nag dañ ko daan dagg nag di ko caxat-caxatee daan ko jaay nag lenn ci askan wi ngir nag ñu daal di koy mën a dëkkee niki foofee nag ca biir dakaaru jaay ca wetu géej gi nga xamante ne bii nag ñu si bëri dañoo ñaawlu woon sax jafe-jafe nga xamante ne bii nag état bi eh, gouvernement bi nga xamante ni ñoo fi jógee di ba mag sàll bi daan nañ ko doxalee ca géej googu nga xamante ne bii moo nekk foofee ca diwaanu Dakar.